dal si euh, faydatu Mawlana Cheikh Ibrahim Niass euh, di ñaan yàlla yal na yàlla yokk leeram tax ñu si barke may ñu at yim dund waaye nag Seydina Aliou Guèye ni moo leen ko waxee rek Kossy TV incha allahu rabbi dina si am taxawaay boo xamante ne nii si biir réew si bitim réew lépp loo xamante ne xew-xew la si euh, mbir la si biir xew-xew bi rek danañ si daal di ànd ak yéen tey nag ñu jàkkaarloo kenn koo xamante ne nii doom la si ki nga xamante ne nii mooy suñu maam Elimane Niass yal na yàlla fanam yal na yàlla yokk leeram tax ñu si barkeem taxawaayam bi rafetoon na fii si biir xabru bi tey tey nag ay njabootam ñoo ko fi wuutuwaat euh, gannaaw bi ñu la fekkee fii euh, tur bi ñu bëgg a xam taxawaay bi tey lan la. incha allah alhamdulilah maa ngi tudd Assane Baye Elimane Niass maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax di julli ci yonent bi salallaahu alayhi wa sallam di gërëm samay ñaari waajur sant Maulana Cheikh Islam Hadj Ibrahima Niass euh, tey ku nekk xam na ne bés bu rëy la ci ñun dañuy wax alhamdulilah waaye ñu ngi jiital inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di sant yàlla nag ci dogal bi ndax uh, ay jullit lañ ay nit ñoo xam ne ñu bàyyi yar lañ ci yoon bi kon dañuy wax ne ñu ngi sant yàlla ci ndogal bi nangu ko lool ki nga xam ni tey moom lañ ñàkk ngi Seyda Fatimatu Zahra bintu ibrahim Ibrahima Niass di taaw Mawlana Cheikh Islam Hadj Ibrahima Niass di nit ku mag nit ku yalla magal di nit ku bax nit ku sel di borom xam-xam watu alquran ci arju ndaw jang xam-xam leppam ma sha allah man damay wax ne kenn ku nek ma nga ko jale sa morom ndax ya Fatimatu zara yaay ñepp la jonne ñepp la mami ñepp la mbollem ko xamne ni xet nga ci aduna bi rek boo demee ci néeg yaa Faatumatu Zahra da nga ko fa fekk mu jàppee leen comme ay doom yim jur mënoo leen a xàmmee ak doom yim jur wallaahi lazim mu doon nit koo xam ne ni nit ku amoon yërmande la nit koo xam ne nii nit ku amoon njëriñ la nit ku baaxoon nit ku tabe woon nit koo xam ne ni danga dafa lewetoon daf lay gis waxtu wu nekk boo ko nuyoo dana laaj ba laaj la sa yaay ba laaj la sa baay ba nga foog ne sax kii warta nekk jëmm juy xam ñun ñëpp loolu yëpp ak woyof la loolu yëpp ak mbaax la loolu yëpp ak ak ak ab lewet la doo doo doo dëgg la euh, kenn ku nekk ñun amuñ lu may Mawlana Cheikh Sam Hadj Ibrahima ñu bëgg ko sopp ko lool bëgg ay njabootam sopp leen lool yaa Fatimatu Zahra doo ko doon gis ci jëxam bi sax mu niru la ne doomu Mawlana Cheikh Sam Hadj Ibrahima Niass la ngir lewetam ngir baaxam ngir yaatoom ngir ngir mën a ubbeeku pare pour uuf ñëpp te kenn ku nekk wallahi lazim ma ngaa ma ngaa ma ngaa wax ne lim jëf ci yow wala lim jëf ci say waajur yi buñ la ko nettalee wala bu la ko say waajur yi nettalee da ngay xam ne kii wàllu yàlla xaqan la wàllu yàlla xaqan la nit ku baax lañ ñàkk waaye lu baax rek lañuy ñàkk wax dëgg fa yàlla lu baax rek la ñuy ñàkk kon nag dañuy gën a sant yàlla di ñaax euh, mboolem taalibe yi waaye tamit di leen wax ne ñun lii euh, du ma wax ne jaaxaluñu waaye xam naa ne jaaxaluñu ndax ku ñàkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ñàkk Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu anhu ku ñàkk maam El Hadj Abdoulaye Niass radiallahu anhu ku ñàkk Maulana Cheikh Islam Hadj Ibrahima ñas xam ne mooy suñu àdduna mooy suñu àllaaxira loo ñàkk lu ne. wax dëgg fa yàlla da nga ko muñee yàlla da nga xam ne lii euh, ndogalu yàlla la nga muñ ko ñaanal ko yàlla yaa Fatimatu bu ñu doon wax ci moom fii ba suba du jeex fii ba suba bu ñu doon wax te kenn ku nekk nekk ci meddina Baye ak fu duut Medina Baye nga jëflante na ak yow wala mu jëflante ak say waajur yi démb loo xam ne nii di buñ la ko nettalee amoo fayam amoo fayam amoo benn fayam li nga bëgg rek mooy euh, saa su nekk rek nga fexe di ko nemmeeku di ko ñaanal yàlla fexe di di di di góor góorlu ci ay njabootam di góor góorlu ci ay ay ñi nga xam ne ñoom la ko yàlla boole loon bàyyi leen ko mu yar leen ñuy ay kilifa tey di ay nit ñu màgg di ay nit ñu rafet xol di ay nit ñu rafet jukkoo di ay nit ñoo xam ne nii ci àdduna bi kenn ku nekk bu la doon wax wala ñu feeñal ko rek nga xam ne jëmm ji tey eh, ñu ñàkk ni eh, jëmm ju màgg la ñu ngi koy jaale ñëpp ni ko imaam waxee ne kenn ku nekk mu nga ko jaale sa bopp loolu mooy li am te mooy dëgg kenn ku nekk mën nga ko jaale sa bopp waaw alhamdulilah ñu ngi koy jaalee ñëpp du ko jaalee adduna bi yëpp adduna bi yëpp ñàkk jullit yëpp ñàkk du ko jaalee xalifa bi di ko jaalee imam du ko jaale Cheikh Mahi du ko jaale mbooleem ku bokk ci xadara Mawlana Cheikh Islam Hadj Ibrahima Niass di sargal di nuyu nag di taxawaayu waa Kossy TV Kossy TV ñu leen di nuyu bu baax ñu ngi leen di sàggal bu baax ñu ngi leen di gërëm bu baax ñu ngi leen ñaan yàlla bu baax ndax am na fu wax ji war a mën a yem waaye am na fu mu war a mën a yegg te yàlla ak ñoom tax na mu yegg fa waaye tamit yàlla ak ñoom tax na ñi mënta ñëw tax ñu xam mbir mi ni muy demee ak ni mu demee saa su nekk kon dañ leen di ñaanal yàlla gudd fan ak wér yàlla sàmmu leen may leen seen yëfi bopp ba ëllëg lépp loo xamee ni bànneex la ak mën a doon ci pays bi ak lu dul bi ngeen mën koo wajottali ñu ngi sant yàlla bu baax ñun ñii tamit nga xam ne tey yàlla def na suñu bàyyi moo fi nekkoon di rakk ci Mawlana Cheikh Islam Hadji Ibrahima Niass ku nga xam ko Baye Elimane Niass nga xam ne maamam ak maam yi baay ñoo bokk ndey ak baay ñu bokk ñoom ñaar mu jaay taalibe gi jëndee mu jaay mbokk gi ak rakk gi yëpp jëndee ko taalibe nga xam ne gannaaw bàyyi moom moo nekkoon ci rawdo bii amee ko amee bu rafet ah ñu ngi fi nekk tey ak suñuy mag ñu ki mel ni alaaji ngi ak baay ñu ni nekk ay ndaw ci seen ron euh, fexeel nga xam ne lépp loo xam ne nii war na ci euh, fii nga xam ne nii mooy barab bi ndigal bu jóge ko fa mu war a jóge ko ci xalifa bi rek ñun ci loolu la ñuy dox ci loolu la ñuy wax ci loolu la ñuy topp ñu ngi sàkku ci yéen ñaan ngeen ñaanal yàlla bañ matal liggéey bii nga xam ne tey suñu bàyyi bàyyee nañu ko ñu matal ko ba nga xam ni ëllëg danañ leen fekk ci euh, ci yoom xiyam ci ron Cheikh Ibrahima Niass ñu ngi ñaanal ñëpp te sàkku ci yéen ñaan yàlla yàlla defal ñu jàmm defal ñu tawféex ci barke Cheikh Ibrahima Niass jërë ngeen jëf.